ci ay kuréel politique dinañu commencé waat di defaat ay structure eh, ngeen a ay carte eh, loolu yëpp ñi nga xamante ni ñoo di secrétaire généraux yi ñoom dinañu ko xoolaat bu baax a baax ci bataaxal bi nga xamante ne eh, moom mooy bataaxal bi ñu bind ci liste yi mën nañu wax ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ñoom la ñu ci poste yi ñu ngi toll ci fukki nit ak ñaar nit ak benn ñu nekk que ñu nekk président wala secrétaire général ñu jàpp ji rek ki nga xamante ne moom mooy jiite jigéen ñi euh, moom mooy euh, Fatou Sow euh, keneen ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bi moom mooy Ndeye Astou Camara JTL moom mooy ndaw yi ñu koy jiite ba léegi moom mooy Franck Dadi Diatta moom moo nekkoon ci poste boobu mooy secrétaire national de la de la jeunesse ñuy wax ni tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy cadre yi Lamine Ba moom mooy seen président Khadim Gueye di seen secrétaire général ñoom daal ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci lim bi Euh, ginnaaw bi nga xamante ni génne nañ ci parti socialiste ñu dem ci euh, déclaration politique générale bi nga xamante ni moom mooy coow li ak euh, Ousmane Sonko Guy Marius Sagna def benn lettre jëmmale ko ci Ousmane Sonko ne ko bul ñëw biir assemblée nationale di def déclaration politique générale ndaxte règlement intérieur bi wu ko kenn ginnaaw bi nga xamante ni tonku nañu ci constitution bi règlement intérieur moom moo moom moo lal ni assemblée nationale di doxee te ci loolu euh, depuis 2019 euh, daanaka dañu sal salfaañi li nga xam moom di règlement intérieur bi ci loolu Thierno Alassane Sall mu ngi ci wax ne euh, réglement intérieur constitution la ñu war a respecté ndaxte di wax laqatu ci ginnaaw ay règlement intérieur di wax ni premier ministre mënul ñëw euh, biir assemblée janoog ñi nga xam ne ñooy député yi loolu du dëgg du yoon Bougane Gueye Dany moom euh, nee na ndax Ousmane Sonko dañ ko war a tër ndaxte moom euh, moom moo fi daanaka moom day wax di weddi noonu lañ koy gisee ci te loolu daw waxit la ci déclaration politique générale Samba si di jiite P di jiite PIT parti indépendance moom euh, euh, moom lu ma xalaat rek mooy gouvernement bi pareeguñu loolu moo tax te waxuñu lu leer loolu moo tax mënuñu janoog ñi nga xam ne ñoo di député yi ñu jàll ci beneen xibaar bu nga xamante euh, ak ay droits d'auteur mooy kuréel bi nga xamante ni moom mooy gérer koom-koomu artistes yi ci lu ñuy gagné ci xaalis démb nag dañ doon def rapport pour 2023 Euh, nee nañu euh, lu ñu gagné woon deux mille vingt deux su ñu ko méngalee ak deux mille vingt trois euh, dafa wàcc ndaxte deux mille vingt li nga xamante ni moom lañu yore yoreel artistes yi mu ngi toll ci cinq cent soixante dix huit lu ko ëpp jàpp cent cent seize mille moom la ñu yoreel su ñu ko méngalee ak atum deux mille vingt deux daanaka dafa wàcc bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Ali Bathily moom moom moo nekk. moom moo di euh, moom moo doon jiite li nga xamante ni moom moo ndaje bi doon addu ci loolu mooy secrétaire d'état ak secrétaire d'état euh, bu culture nekk ministre ministère euh, de la culture moom teewoon na fa ci dinañ ko xoolaat ba pare am na SODAV yéen liggéey yu nga xamante ni ñu ngi koy sumb ci atum 2023 bi rapport bi mi ngi wax ne 499 millions 310 mille moom la ci atum 2022 li nga xamante ni moom moom moo di bi bor bi euh, moom moo di quatre cent quatre vingt dix euh, euh, ci suñu ay xaalis ñoom nag am na ay plan yoo xamante ni nee nañu teg nañu ko lu mel ne defal copie privée Euh, maanaam artiste bi ñu xaatim turam jagleel ko euh, à chaque fois li nga xamante ne moom lay am ci euh, wàllu ndàmpaay ñu dem fi nga xamante ni moom moo di Guinée bien que sax ñoom ndaje bi si Sénégal démb lañ ko doon defee ci ambassade bu nekk Guinée fii ci Dakar soxal ay taskatu xibaar ndaxte Guinée ay médias yu bëri dañ leen a tëj ay médias yu mag a mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité guinéenne yi militaires yu fa nekk ñoom ñoo lañ tëj ràpp ñoom nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy bureau Afrique reporters sans frontières ñoom ñoo tase woon lëkkaloo ak euh, ñi nga xam ne ñooy convention jeune reporter du Sénégal ak waa coordination de la presse bu Sénégal ñu lëkkaloo si ñu ne euh, nañu tijji médias yi nga xamante ñoo nekk Guinée ku tëj ndaxte loolu du dëgg du yoon am na journaliste yoo xam dañ leen bundu xatal foofu euh, defuñu ni ñoo fa tëj maa ngi ko doon wax sànq mu ni Joma TV Joma FM Espace FM nga xamante Espace TV moo ëmb ñi nga xamante ñoo di Adafo Média nekk média privé bu mag boo xamante ne ngi doon def liggéey liggéey bu mucc ayib ci Guinée Aja li mu gën a fës ci actualité soxal politique ak économique ci euh, tey jii ci suba teel gi. jërëjëf Pa Malick ñu jaajëfal bu baax a baax maa ngi xaar nga yéeg fekk si ma fii ci plateau bi euh, bu ko defee ñu gën a yaatal ci suñu dossier politique d'aujourd'hui léegi léegi lay doon. léegi léegi merci beaucoup à Pape Malick Thiam mbokk yi ma proposé leen gën seetaan benn clip et juste après ñu dikkaat ci plateau bi.